xamante gis ngeen euh, depuis deux semaines wala trois semaines euh, coow mi ngi daal di am euh, file ci réew mi ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy soixante dix neuf familles yi di jànkonteel ay jafe ñoom sax tey jii bu quinze heures jotee daañu amal ab marche ànd ci kuréel gile di FRAPP France dégage ngir amal kon waxtaan ci mbir mi moo waral ñu dalal Al Hassane Hanne pour am ay leeral ci problème mu boobu boobule ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm Euh, maa ngi leen di fay di leen gërëm ci invitation bi. Mm-hmm. Euh, di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax muy lu jëriñ askan bi mm-hmm. voilà bala ñuy commencé dara peut-être dinañ dugg tuuti laaj la Alassane Hann yow euh, naka nga duggee ci armée sénégalaise ban année nga servir ban année nga ci génn exactement expérience bi nga xamante ni jot nga ko am ci armée sénégalaise ci tënk rek ñu xam lan moo la ci dugaloon exactement. waaw man. 1er janvier 1986 laa dugg armée sénégalaise mm-hmm. euh, nekkoon nag euh, amoon euh, disons ay prédisposition ci aviation waroon a dem armée de l'air mm-hmm. donc du woon sax yoon wi waaye dama demoon def engagé volontaire rek pour mm-hmm. xaar exactement place bi ñu ma waroon a jox pour ma dem d'ailleurs bi ma bi ma duggee armée dama jógee Bango rek automatiquement ma enchaîné dem stage Maroc alors bi ma demee nag def fa sama stage ba ñibbisi nekk armée de l'air di fa yëngu ba 2008 ma bi 2008 bi mu jotee ci la contentieux terme sud bi mhm. euh, daal di door mhm. euh, te mën naa wax ne sama jóge armée de l'air contentieux bi moo tax mhm. mais yow maanaam armée euh, dafa nekk sa loo xam da nga ko bëggoon naturellement nga def ko wala dafa am contrainte bu la dugal ci biir armée non armée da koy bëgg nga dugg ci. Mm-hmm. waaw parce que ñun ñëpp xam nañ ne ñu nekkee xale. Euh, man dama dama dudd ci famille boo xam ne euh, disons de nature famille homme de tenue la. Mm-hmm. sama papa policier la woon. sama grand frère commissaire de police. sama beneen grand frère militaire la. samay rakk ay militaire lañu. Mhm. donc ñun. armée c'était naturel daal nga dugg ci armée naturel ma dugg ci armée. ragaloo comme ñeneen ñi parce que dañu wax armée vraiment ku fa dugg da nga jël sa bakkan tayle ko. waaw bo en fait ñun disons euh, ragaluñu ragaluñu. Mhm. ragaluñu dugg nañ ci yàlla def na ba léegi ñu ngi dund. Mhm. waaw lan moo la gën a marqué ci ci ci ci biir armée bi sa liggéey ci biir armée bi. ci front yi nga demoon ainsi de suite lu la ci gën a marqué ban mission. waaw xam nga armée man dama am ñaari euh, ñaari facette. Mhm. dama nekk militaire ba pare. Mhm. nekk technicien d'aviation. Mhm. alors wàllu militaire. Euh, bu ma xoolee mission opérationnelle bi ma dem euh, République démocratique du Congo dem jànkoonteeg jafe-jafe yu tar foofu nekk foo xam ne maanaam maanaam humanisme amatu fa mhm. nekk fa gis les enfants de la rue guerru Congo bi mhm. euh, ñun suñu contingent euh, Senbat mhm. mooy contingent bi nga xam ne moom moo njëkk a dem Congo en 2005 sous le chapitre 7 maanaam avec possibilité d'engager le combat keroog bi 30 juin 2005 euh, bi ñu waxee ne mandat wu Kabila jeex na congolais yi war a xeex ci seen biir ñun ñoo njëkk a génn def mm-hmm. patrouille mm-hmm. avec tout ce qui avec ce que cela comportait comme risque mm-hmm. euh, loolu moom ma gën a marqué ci sama mission armée sama mission technicien euh, daanaka boo xoolee euh, ma wax la benn anecdote am na roplaan bu bu daanu bu armée de l'air bu daanu Mali benn Fokker Fokker boobu dama am histoire ak moom. Mhm. Fokker boobu keroog bi Sénégal jóge yëkkati xaalis jox ko commandement pour ñu jël Fokker bi yóbbu ko. Mhm. mu dem ñu ñu réviser ko euh, fële bitim réew Hollande. Fokker bi ñun ñoo ko man maa man ci sama bopp. maa mhm. ko doon euh, saytu guddeeg bëccëg. moo waraloon sax dëkk sama dëkkuwaay nekk à proximité. booy may saytu fokkeer bi normalement fokkeer bi bu waree génn fokkeer bu waree génn fii dem révision ñun ñoo war a ànd ak moom. Mhm. Euh, mësuma ànd ak fokkeer dem mu dem révision. Mhm. heure bu dem jotee dañu jëli ku ne da ngay jël sa xarit. Mhm. désigner ko parce que xaalis la. ñun dañu man dama doon toog di muñ. fokkeer boobu ma lay wax. keroog ba mu demee ñu war fa def trois mois wala quatre mois. toog na fa dix-sept mois. 17 mm-hmm. mois après Fokker bi di ñibbisi. Mm-hmm. ñu Sénégal xam ne am na avion bu ñu révisé. Mm-hmm. mu war a ñëw ñibbisi ñu programmer ko pour mu yóbbu ay mission ay VIP. maanaam ay ay personnalité Fokker bi jógee Hollande di ñibbisi ñëw ba Maroc paan fa. Marocains yi daal di koy dimbali ba mu agsi keroog euh, jaaxle nañu parce que Sénégal. yëkkati xaalis bu dul jeex. Euh, jox leen ko pour ñu dem réviser roplaan roplaan bi def 17 mois ñu dellu si euh, roplaan gi taxaw. taxaw ñemewu ñoo wax autorités yi ni roplaan gi taxaw nañ. Mm-hmm. taxaw na mm-hmm. keroog man ci sama bopp sax période ju mois de juillet la woon guddi googu maa ngi fanaan hôpital. Paris mm-hmm. mais keroog bi ñu jaaxle ba jaaxle man la ñu jël si. fi nga tëdd feebar tëdd feebar man la ñu jël si chef d'état-major armée de l'air bi taxaw yónni ndaw ne bu ma jógul du baax parce que euh, ni ma la ko expliquer rek keroog man maa jóg ñëw fekk erreur boo xam ne usine ba lañ ko defee. Mhm. maa ko wëlbati. Mhm. armée de l'air yëpp teg nañ ci seen bët. di topp roplaan yi di ko topp di ko topp ba am ci euh, situation boo xam ne dem naa ci ba bind président de la république. Mhm. comme ni ma bindee woon président de la république ci euh, roplaan gi daanu avion médicalisé bi. am naa ci jafe-jafe. ba hmm. bind président de la république pour ñu bàyyi ci xel. Hmm. tey ji roplaan googu moo daanu Mali. moo daanu Mali waaw. Hmm. donc mu nekk loo xam ne yow avisé woon nga ko bu yàgg. avisé woon naa ko bu yàgg mais mais loo bëgg a wax euh, sous-entendre foofu que peut-être euh, xaalis bi nga xamante ni euh, ñu ngi koy joxe pour ñu entretenir roppalaan yeeg ainsi de suite est-ce que kon ñoo ngi ko fay def bu fekkee te ni fi ngay fi ngay waxee foofu laa déggee. waaw non dama bëgg a wax rek. est-ce que waaw bëgg a wax loolu. Mhm. Euh, wàllu état la. Mhm. parce que état bu dégager ay fonds pour euh, budget de fonctionnement. Mhm. état moo war a teg ay mécanismes yoo xam ne dañ ko war a xool ndaxam mi ngi jaar yoon wala jaarul yoon. mais man fi may waxee rek mooy euh, ñun dañ nekk ay ndawal buur di liggéey pour Sénégal. waxtu bu ñu lu ne nag dogg nañ ci lu ñu soxla ñu defal leen ko. mais bés bu suñu suñuy droit taxawee. ñu jëlee ko tegee ko ne jël ku jël def lu leen neex. Mm. foofu laa bëgg a waxe mm. tey jii armée la grande muette la ñuy faral di dégg euh, lan lañ si mën a dégg exactement pourquoi armée grande muette. waaw xam nga armée euh, maanaam dafa di loo xam ne euh, dafa sacré. Mm-hmm. deme na noo xam ne kaaraange réew mi la na muy na muy liggéeyee waruñu ko teg sur la place publique. Mm-hmm. mili soldats yi sax fa ñu nekk fa ñuy yëngu lañ ñuy yëngu ci la ñuy yëngu kenn waru koo xam ba keroog ñuy génn di jàmmarloog ñamu ñañuy jàmmarloo mm-hmm. secret défense la ñu wax waaye nag tekkiwul euh, grande muette la rek lu lu mu neex nit teg ko moroomam loolu amu fa dafa am règlement militaire bu régir lépp ay dispositions légales réglementaires règlement de discipline générale moo fa am. Hmm. malheureusement euh, dañu am tendance léegi. Hmm. am euh, njiit yoo xam ne. Hmm. Euh, dañu embourgeoisé wu. maanaam tey jii contrairement ak njiit yi nga xam ne ñoom la ñu xamoon ñoom ñoo taxoon ba ñun ñu bëgg armée su ma koy wax mooy général Idrissa Fall. ñoom général Tavares D'assouza ñoom général euh, Jean Alfred Diallo ñooñu boo leen daan gis fierté ngay am ci armée hmm. waaye tey jii euh, da ngay gis ñoo xam ne euh, boo leen xoolee sax xam ne seen ngëm-ngëmu armée seen ngëm-ngëmu soldat des na waaw seen physique rek déjà moo lay njëkk a rejeté loo nit ñu parce que léegi fi mu toll nii armée ku ci nekk wutoo lu dul loo am hmm. waaw voilà tey jii euh, problème am euh, dañuy dugg peut-être temps bi bariwul kon te foog ñu dugg ci li nga xamante ni euh, moom mooy problème bi occupé actualité bi ñu jiital la def la collectif ngeen def collectif des soixante-dix-neuf familles expulsées de terme sud fële ca Wakam aan nga expliquer ñu affaire bi exactement naka la demee waaw ba ñu ba ñu ba ñu génn leen fa ngeen dëkkoon Euh, ba actuellement ngeen di dund ci situation bi. waaw euh, muy lu metti lu naqari. Mhm. tegu rek ci caay-caay ak jaay doole. Mhm. Euh, lu tax parce que fi nga xam ne foofu lañ ñu génnee terrain privé de l'État la amoon na ay jamono. fi ñu leen génnee terrain privé. privé de l' état. de l' état maanaam état du Sénégal fii ñu toll nii fi may wax ak yow nii état du Sénégal moo ko yor moo ko moom. moo ko moom morcelé ko di ko jox ay sénégalais. Mhm. mu fekk ñun ñu dëkk fa ak suñu njaboot. def fa fanweeri at ñeent fukki at. Mhm. ñun disposition. bi ngeen fay dëkk boobu yéen a ngi servir armée. boobu ñu ngi servir armée. Mm. armée moo yoroon moo contracté woon bàyyi ak état du Sénégal booba ay logement la yoo xam ne ay logement administratif la woon mm-hmm. doon ñu ci dëkkal mm-hmm. ñu dëkk ci di fay ñu ñu coupé suñu indemité de logement bi ñu demee ba 1994 ngeen dëkk di fay maanaam pour nga expliquer indemnité de logement maanaam ku dëkk da ngay fayaale waaw li ñu la jagleel ci indemnité de logement dañu dem à la source fañ mm. lay fayee ñu dagg ko ñu dagg ko fa mm. ak yeneen ak yeneen daal lay jox logement. daal lay jox logement donc sa indemnité de logement militaire bi du ko jot. du ko jot dañ koy dagg dañ koy dagg directement. voilà léegi bi ñu demee ba 1994. Mhm. disposition yooyu armée rompre ko ak état du Sénégal maanaam état du Sénégal jëlaat suufam. Mhm. li li gënoon mooy ñu jàkkaarloog ñi fa dëkk wax leen ko ku ne jël say disposition mhm. waaye ñun yëguñu dara ba 1999 ñu gis ay civil yu ñëw foofu. di di di di di di morceler di tracer di tabax. di tabax. Mm-hmm. ñooñu wax ñu ne ñu yéen fi ngeen dëkk nii armée moomatu ko. Mm-hmm. comme yéen a fi dëkk ak seen njaboot dem leen ngeen def seen demande. Mm-hmm. état du Sénégal jox leen seen kër yi parce que disposition euh, loi domaniale yi. loolu la wax. mais état ak armée ban problème dañ amoon bañ bañ retirer euh, logement yooyu. si mais amul benn problème. dafa jékki-jékki neexatu ko. déedéet tey jii. Mm. Euh, xam nga situation bi demee na noo xam ne. Mm. wax ji bari na. Mm. Euh, mais li ci am ba am armée moo toog ba mu neex ko. mu ne moom yoratul kër yi delloo na ko état du Sénégal. ma wax la nag tey ji ma wax ne ñoom ci seen bopp. comico coopérative militaire de construction boobu. nga xam ne titre titre foncier ba ñu ne. Mm-hmm. dañ ko cee joxoon en 1993 jox ko ci benn benn benn pàcc. Mm-hmm. genn wàll gi. ba mu demee ba 2004 ñu immatriculé ko ko. Mm-hmm. Euh, titre foncier. mu des beneen pàcc bi ñu dëkk. bi ñu demee ba soxla pàcc woowu. ci la ñu toog waxtaan ñoom ci seen biir. ne nañu déclasser site bi comme ça ñu jéem koo laaj état ndax état jox ñu ko. ba ñu defee loolu. Mhm. déclassé site bi jox delloo ko état wëlbatiku laaj ko état état def leen xamal ne mënu leen koy jot parce que am ngeen ci titre foncier bi ba pare. Mhm. jox nañ leen ci li leen ci war a jox. Mhm. def nañ ko ñetti yoon bu fekkente ne juumuma. ñetti yoon ñuy laaj état rejeté leen ko ñun nag ñu dëkk fa bu ni ma la ko expliquer ba keroog ñu jël suñuy demande def ko jagleel ko état. pour lan pour que ñu delloo ñu ñun suñu kër yi di moment que état mi ngi joxe terrain bi morcelé ko. def ko mi ngi koy dagg di jox par commerçant bi ne Sandaga. n'importe qui am na fa bàyyi di waaj a ñëw tabax. di tabax ñun ñi nga xam ne ñoo fa dëkk. am ci droit muy droit de préemption. Mhm. ñu bind pour ñu jox ñu. pour yéen tamit ñu jox leen. si si si ñu jox ñu ci ci kër yi ñu dëkk. parce que ñu bàyyi leen kër yi ñu kër yi. ngeen fay wala. de waaw ñu fay bu dee dañu ñu koy fayloo ñu fay. mais ñu bàyyi leen kër yi ñu bàyyi ñu kër yi. waaw ñoom ñu nekk ci disposition yooyu defar euh, courrier bi ba di ñu ko delloo jaarale ko état major général des armées ay officiers yi ngay gis ñuy gravité autour fi mu ne nii daal di jël suñu liste ñi fa dëkk. teggi ko jël ay seen seen tur ñoom dugal ci biir. Hmm. ñan ñoo dugal seen tur ci biir. moom officier yooyu officier yu mag. Hmm. ñimal ñimal dinaa la leen limal. ñu ci hmm. bari bi ñu defee loolu ba pare daal di gëmloo euh, agent impôt et domaine yi ne leen ñoo ñu xam ñooñu déjà ñoo leen woo ba ne leen yéen li ngeen di def nii mënta ne. parce que ñii mënuñoo dëkk ci béréb ba ñu koy séddale ñu dëkk fa ak seen jaboot ngeen ñëw ne da leen da leen di dàq jël. Hmm. ñu xam la leen ne leen ñii ñoo leen commandé suñu leen joxee ay message de déguerpissement rek dañuy dem. Hmm. loolu la ñu def. Hmm. ñëw xëy suba teel rek indil ñu message de déguerpissement ne da ngeen di génn parce que jaay nañ ko coopérative bi. mooy mooy comico comico bi. fekk ñun am nañu information bi ñu ne leen pourquoi ñuy jël lii di ko jaay coopérative bi coopérative bi du militaire civil la comme particulier ñun ñu dëkk fii ñu ne ñu génn leen ñu jaay ko keneen loolu bon mooy ban wax. mais tamit taxul ngeen moom ko yéen tamit. ah mais taxul te ba ngeen fay nekk ay logement de fonction la woon bo bo yow. boo nekkee sénégalais. Mhm. nga dem ba disposition taxaw nga am ay droit war a jël say droit. Mhm. ce n'est pas parce que yow ci sa bopp ba nga fay dëkk logement administratif la woon jeex na nekkatul logement administratif ñu ngi koy jox sénégalais yi. n'importe qui tey jii nga bëgg ñi fa dëkk seeni doom juddoo fa ñu def fa quarante ans nga bëgg ñooñu génn ñu jël beneen sénégalais jox ko ko te ñoom loi domaniale yépp mànkoo ne bu joxe amee balaa ñoo jox kenn na ñu jox ñu fa dëkk ba pare ñu ci loolu mais est-ce que c'est pareil parce que bu fekkee comme d'habitude lu ñu xam ci logement de fonction euh, yaa ngi liggéey euh, ñu jox la logement Euh, dans les normes euh, dafa mel ni voiture de fonction ainsi de suite bu fekkee euh, yorotoo fonction boobu dañ daañu retirer logement bi daa dans les normes daañu retirer li nga xamante ni mooy oto bi ainsi de suite est-ce que nekkul le même cas est-ce que nekkul tamit yéen da ngeen a ñëw jàppandu ci benn logement de fonction ne du ngeen bàyyi bëgg a indi le fait que yàgg ngeen fa depuis trente ans quarante ans ainsi de suite waruñ ko jaay keneen alors que nekkul musul nekk seen propriété c'était juste des logements de de fonction waaw soxna si mm. benn soldat xalaatul nga jël logement de fonction mm-hmm. dem ba génn jot ñu ne la génnal ngay opposé wu xalaatoo ko armée dafa am ay ay jumtuwaay yoo xam ne mm-hmm. euh, la mu teg amul benn soldat bu ko xalaat logement yi bu demee ba nekkat parce que fii instant boobu nekkatul woon logement de fonction Hmm. instant ban ban moment instant eh, eh, depuis 1994 ba 99 bi ma lay wax ni ñi ñaa ngi ñëw di tabax. Hmm. nekkatul woon logement de fonction mais yéen fekkoon na la ngeen nekk fa fekk na ñu nekk fa. Hmm. ba séddale bi fekk ñu fa. mais bu ñu fa séddale bi fekkee. ñu am ci ay droit balaa ñoo jox keneen ñun la ñu war a jox ay loi yi wax ko muy droit de préemption. mais ñun pourquoi ñun duñ ci jouir de surcroît. ñoom ñi nga xam ne. Mm-hmm. dañ ko dañoo ñëw soxla ko ñu jox leen ay boo dañoo ñëw soxla wuñ ko dëkk de. Mm-hmm. da ngay gis ku yor baayam jóge Thiès wala jóge bitim réew ñëw indi baay bi indi client di ko ko jaay. Mm-hmm. yow nga dëkk ci kër di ko entretenir di di di fay ba joxe jot. ba joxe jot ñu ñëw fekk la fi nga toog ñu jox ko nit nit ñëw di ko jaay yow ñu ne la génnal. affaire bi noonu la demee noonu la demee. boo yaa ngi nii ñu yore mhm. wane nañ ko fu ne jàpp nañ ko fu ne mhm. léegi nag loolu tax na ba ñoom ni ma la ko expliquer noonu ñoom ci seen bopp ñu jël bi ñu jéemee dàq mënuñu ko mhm. ñu jël coopérative militaire de construction comico jiital ko parce que en fait du moom moom mënatul am ci terrain bi li ngeen di coow li ngeen di dégg nii yëpp du coopérative militaire de construction du comico dañ ko mbubbu woo comico bañ ko jëlee mu yóbbu ñu tribunal 2009 ba mu ñu yóbboo tribunal dafa ne état du Sénégal daf ko jaay ci morcellement ba mu def foofu. Mhm. daf ko cee jaay cent quarante parcelle de cent cinquante mètres carrés. Mhm. numéroté de un à cent quarante ba mu demee tribunal mënu ko firndeel ba deux mille quinze ñun. dañ ñun la ñu yóbbu traîner tribunal ñu jël suñuy avocat 2015 tribunal daal di tranché xamal leen ne yéen li ngeen indi wax ko teguwul fenn maanaam comico un waratu fa am droit deux dispositions yi ma teg teg jaarul ci yoon maanaam daal tribunal ne lépp lu doxoon diggante comico ak état du Sénégal nañ ko effacer ba pare hmm. état du Sénégal condamné eh, tribunal condamné ko. pourtant Sidiki Kaba waxu lool de. mais Sidiki Kaba. si Sidiki Kaba nee na fu ngeen mën a dem ak comico ci wàllum justice. jox nañ ko dëgg. dinaa loolu la wax si sorteem bi xaw ma ba xam. suivre ngeen ko. waaw wala déet c'est il y a juste deux jours comme ça Sidiki Kaba kilifa la. waaw mooy ministre des forces armées. nee na fu ngeen mës a dem. ak Comico ci wàllum yoon Comico gañe na leen fa. dinaa dinaa dellu si ci mm-hmm. Sidiki Kaba. parce que mm-hmm. Sidiki Kaba kilifa la. Mm-hmm. am na kilifa am na foo xam ne. Euh, da ngay moytu. mais dégg nga li wax. dégg naa li mu wax. dangay ngay moytu di ko laal. parce que Comico. collectif des habitants def ko daan en deux mille quinze muy daan bu leer nañ. Mhm. comico moom ci boppam état du Sénégal mi nga xam ni moo moom suuf si moo ko administré moo koy joxe bi ko tribunal daanee dafa gëm daan bi ko tribunal daan waxul dara comico ci boppam moom moo encore une fois ma wax leen ne du comico mhm. dañ ko mbubboo dañoo mbubboo comico ñi ko mbubboo waaw ñan la exactement mooy ay officier supérieur ñan la yan officier la officier supérieur dinaa ñëw ci loolu mhm. may ma rek ma ma daaneel mhm. parce que benn lobby la ñoom la ñoom ñoom ñoomi neen la tey jii li am yëpp dafa gravité autour d'un seul lobby waaw léegi euh, bi ñoom ci seen bopp ñoom officier yi ñoom ñoo dellu si au dernier moment. Mhm. ne dañu interjeter appel parce que nee nañu doole lañu yore. Mhm. maanaam li xew ci li xew ci terrain bi seen yoon nekku ci. Mhm. léegi ñoom dañu dem ci ci wet gi. lépp loo xam ne mën nañ koo am ba justice jox leen benn décision bu mën a tax ñu ñu ñu intervenir ci terrain bi rek la ñu soxla. lañ soxla. parce que bi ñuy dellu see appel. dañoo dellu si ne ñoom état du Sénégal def leen jaay. Euh, trois hectares de terrain nu hmm. maanaam trois hectares yoo xam ne kenn dëkku fa loolu mooy daw fi mu toll nii hmm. ba exécution bi ñu def nii c'est relatif à trois hectares de terrain nu ñu woo ñu ci ba ñu ci woowee ñoom ci seen bopp comico ñoo demandé à ce que tribunal bi yónni benn expert expert bi ñëw waxal leen fii terrain bi nekk hmm. ñoom comico ay éléments du génie militaire ñoo fa nekk. Mhm. ñoom ñoo ñëw ci site bi def seen benn tracé. tracé bi boole ci ñun suñuy bâtiment quelques bâtiment fi ngeen nekkoon mhm. ñoom bi ñu ñëwee expert ba mu ñëwee dafa dellu tribunal won leen ne fii ñuy wax ne terrain nu la du terrain nu parce que foofu dafa am ñu fa dëkk ñu fa dëkk normalement à partir de ce moment juge bi dafa waroon a daf leen waroon a delloo seen kayit mhm. le dossier devait être irrecevable mais extraordinairement dem nañu di dem di dem ba ñoo ñoom ñu ne terrain nii lañu la leen état bi jaay ñu dem ba juge mën a génne décision ne leen seen terrain nii boobu ña fa dëkk mhm. mën ngeen leen expulser chose extraordinaire mhm. léegi dañuy déglu euh, colonel Matar Diop bu DIRPA euh, joxe na version comme saa yow nga mën a commenter wax li nga xamante ni colonel bi jot na ko wax euh, dama bëggoon ñu bokk ay ay document am na ay euh, information yoo xam ne bu ñu ko jotee kam dina tax askan bi gën a xam lan moo wundur problème bi ñuy wax léegi problème comico dama bëggoon aussi fàttali ko ne que ci ci ci ci dossier boobu quartier musul jéem a disons def violence donc euh, euh, deful ci kanam jiitalul doole maanaam pour pour régler ko quoi lii xoon mooy ne que dafa amoon ay militaires bi ñu liggéey dañ leen joxoon ay kër ñu dëkk ci bi ñu libéré ñu bañ ñu ne duñu dem après ñu daal def ay démarches tout ça ñu ne ñoom nañ leen jox terrain parce que ñoom ñoo fa dëkkoon comme état dafay joxe ne leen ko jox. donc entre temps comico bi nga xam ne dafa ne benn kuréel boo xam ne soldat ku nekk ku nekk quartier mun nga ci bokk pour am kër comico. dafay ut ay ay ay programme partout bu si rek Dakar rek ay Thiès partout dafay ut ay parcelles di tabax di ko jox soldats yi ci njëg boo xam ne bu doon Comico ñu bari du ñu am kër donc Comico entre temps ñu jënd terrain boobu ci état bi bu ñu ko jëndee depuis deux 2000 lañ ko jënd bi ko jëndee ñoo gaa yooyu seen collectif bi ñu attaqué Comico devant la justice ñu ne pour que yoon nii la contrat boobu yoon ñu yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba yoon jox euh, jox dëgg comico ne leen lii yéen ko moom jën ngeen ko ci anam bu amul benn werante mun ngeen jël seen àll léegi loolu bi mu amee ñoom ñu attaqué waat mais daal li li li li am solo mooy ne ko yoon jox na définitivement terrain yooyu comico léegi loolu bi mu amee comico jël huissier également ne leen na ngeen génn donc loolu moo andi déguerpissement bi da ngeen xam ne affaire depuis 2008 la et puis ñan war naa leen sànq benn këyit ñoom ñëpp signé nañ ko ñoom ñëpp signé maintenant nag ku buggul gën bëggoo gën loolu moo tax euh, loolu bi mu amee donc euh, ñu jël descos bi nga xam ne moom moo fi taxaw loolu mooy liggéeyam après ñu génne leen te bi leen di génne aussi génnewuñu soldats yi nga xam ne ñoom libéré guñu ñooñu ñu ngi nag seen kër ba léegi parce que libéré wuñu am nañ droit dëkk fenn. maintenant ñaareelu affaire bi mu bëggoon wax mooy ne que ci 26 ci ci famille yooyu cent 79 famille yooyu. maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent famille am na ci vingt 26 maanaam ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xam ne am nañ ay kër ci programme comico yi des am na ñetti famille yoo xam ne am nañ kër waqaam foofu en face am nañ seen ay kër luye ko wan naa leen ko sànq jox naa leen tur am na ñeneen am nañ ay kër ci yeneen programme yi yëmbal wala comico donc ñooñ jël nañ seen kër luye ko ñooñu bénéficie nañ ci programme comico yi te léegi nag nee nañ. fii nga xam ne Comico daf ko ciblé pour seeni naataango yoo xam ne def nañ fa seen xaalis depuis ñii 10 ans 15 ans ne ñoom foofu lañ bëgg donc ñoom nee nañ Comico loolu warul def programme foofu ñoom nañ leen jox terrain yooyu te ñoom 26 am nañ ci ay kër Comico. donc loolu moo njëkk am am na 10 yoo xam ne ñooñu ay soldats lañ ba léegi c'est-à-dire retraité guñu donc ñooñu génnewuñu leen mais ci fukk yooyu am na ci ñett ñu am kër Comico. seen këru bopp ñu ngeeg seen këru bopp am kër termisit ba pare du ñu génn génne wuñu leen sax waaye seen droit la ñu am ñu am kër foofu mais dañ bëgg a wax rek simplement ne ñoom bénéficié nañ ci programme Comico léegi kër yi nga xam ne Comico terrain nga xam ne Comico daf ko jënd ñoom ñi ñu koy xëccoo ak ñi nga xam ne seen naataangoo yi ñu ngi toog ñii depuis 10 ans fukki at juróomi at père de famille jéem a wut seen épargne def ko apport toog di xaar voilà ensuite lu ma bëggoon wax aussi c'est que dañu wax ne que comico euh, cadre yi lay lay liggéeyal maanaam sous-officier yi ak officier yi da bëggoon ne loolu amul parce que comico bi mu talee def ay kër ba léegi def na 4825 maanaam ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi kër programme am yëpp nga xam ne terme sud Thiès golf partout ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti kër ñaar fukk kër ak ak juróom. ci loolu officier yi am nañ ci junni kër ak téeméer ak juróom fukk ak juróom kër sous yi am nañ ñaari junni ak juróom-ñetti ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti kër ak soldats yi militaire am nañ juróom-ñaari téeméer ak fukk ak benn ak juróom fukk ak benn juróom fukk ak benn. te li ma fàttewul aussi c' que du soldat yi rek même personnel civil yi ñi nga xam ne parce que parce que quartier am na ay personnel civil ñii di liggéey intendance ñii di liggéey euh, matériel et cetera ñooñu aussi am nañ am nañ am nañ ci ci kër yi am nañ ci kër yi maanaam kuy liggéey quartier rek personnel civil ak ñeneen ñëpp donc ñii am nañ ci kër yi également donc loolu mooy firndeel ne que li ñu wax ne comico dafa nekk fii pour cadre sous su yi ak officier ñu fàtte soldat loolu amul te aussi am na facilité yu yu yu yu yu quartier di def di encadrer nit ñi ba xam ne ku jóge mission ñu teete la encourager la pour que nga jël li nga am nga def ko apport donc ñu ci bari maanaam boo jël actuellement tey fukki soldat yow gis ñu am kër juróom-ñett yi <laughs> comme ko moo tax ñu am kër. ci euh, ci famille yooyu yëpp juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent am na ci ñaar fukk ak juróom-benn yu am seen kër. comico yi ba pare loué ko te affaire dafa yàgg affaire depuis 2008 la woon 2008 nag koo xam ne yow bëgg ngaa génn te surtout nga am foo dem nga am sa kër d'abord jël ko loué ko ci comico yi encore saa yi depuis 2008 kay ku bëgg a dem xanaa euh, dem nga bu yàgg donc loolu moo tax maintenant nag li ñu wax te ñooñ boo leen fa bàyyee parce que am na ay pères de famille aussi yeneen soldats yoo xam ne def nañ seen xaalis bu yàgg toog di xaar xamuñu ci seen condition lañ nekk peut-être dañoo loué toog di xaar programme bi donc loo gën a yàgg rek ñii ngay ñii ngay ñii ngay euh, ñii ngay lor ñii ngay lor est-ce est-ce que ñi war nañ leen lor est-ce que yow di nga jël koo xam ne am na këram loué ko ak kii nga xam ne amagul kër teg na xaalis di xaar bu fekkee dafa am koy dimbali kay da ngay dimbali kii jël xaalisam dugal ko di xaar. voilà loolu nekk euh, leeral yi nga xamante ni colonel Matar euh, Diop. Euh, bu DIRPA andi na ko ci coowal terme sud bu Wakaam lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne mooy déclaration. Euh, euh, mbir mi. ba mu mm-hmm. dooree 2008. Mm-hmm. ñun 2007 ñun collectif habitant du terme sud. 2007 mm-hmm. fekk na depuis mille ñun ci suñu bopp jànkonte na nguur gi jox ko suñuy demande ba nguur gi en 2007 di ñu defaral rétrocession par voie de bail. ñoom loolu la gis suñu kayit di waaj a sotti ñu dabu ko dem ñëw di laaj comico euh, dama leen di wax. maanaam demoon ngeen bañ leen di defaral yéen seen i. kayit defaral ne suñu kayit ba pare. Mm. li ma la ko waxee liste bi nga xam ne moo accompagner suñu bâtiment yi liste boobu la ñu teggi daal di dugal seen tur. Mm. comico dama lay wax léegi ne association de malfaiteurs la. comico moom ci boppam. Mm. Euh, c'est pas c'est pas le premier DIRPA mooy génnee kàddu di ko di ko joxe. benn may ñaawlu kàddu yi nga xam ne mi ngi ko yëkkati. Hmm. jëmale ko ci ñi nga xam ne ñi ngi terme sud. te am seen bien privé nga xam ne kenn mayu leen ko ñoom ñoo ñaq seen ñaq jënd ko ci yan anam kenn mënu koo xam parce que ñooñu euh, Adja da gis koo xam ne. Hmm. sa papa ak sa yaay dañuy loué. nga xataraayu dem wuti xaalis def dugg ci promoteur immobilier parce que du du du rek Comico moo fi coopérative. Mm. boo jëndee kër ba pare jël sa papa sa yaay dugal ci biir. wala yow ci sa bopp nga am sa rakk bu góor yow nga am possibilité. Mm-hmm. dugg ci promotion immobilière. Mm-hmm. pour dimbali sa rakk mu am kër. nga jël sa xaalisu rakk en ton nga dem jënd kër jox ko ko. maanaam muy propriété privée boo xam ne yoonu Comico nekku ci ma wax la Comico léegi ne association de malfaiteurs la Comico dinaa la jox léegi ay firnde mm-hmm. Comico ci boppam mm-hmm. dégg ngeen coow li fi amoon ba ñu demee fii dem ancien école Air Afrique ñu dem président Abdoulaye Wade jox leen fa benn terrain mm-hmm. ñu séddoo ko ci ñaar fukki officier ak juróom-ñeent yeneen officier jóg jàmmarloog ñoom coow li na kur presque bi génne ko yéen gis ngeen fi comico mu jaar ni dem ba Bambilor mhm. daal di fekk ay ay ay maraîcher mhm. ay ay néew ji doole ñëw fekk leen ñu toog ñu dal seen kaw yàq seen i eh, eh, périmètre maraîcher mhm. yàq seeni i seen i seen i jur eh, forcer leen ñëw jël terrain bi tabax comico du moom rek moo fi coopérative police am na coopérative gendarmerie am na coopérative douane am na coopérative pénitence am na coopérative corps constitué yëpp am nañ ay coopérative kenn mësta dégg benn coopérative ci con corps constitué yi mu muy xuloo walla muy xeex hmm. suñu soxlaa programme dañuy dem ba fu kenn dëkkul ñu laaj état bi état jox leen ko ñu exécuter seen programme te jàmm na ñooy comico mennum comico ngay dégg fépp fu mu soxla ñëw fekk ay nit dëkk fa mu gën leen koo soxla ñëw jaay leen doole nangu ko mhm. loolu moo xew ci comico te du comico moo wax leen ko léegi tey jii valeuru terrain bi terme sud ba tax ñoom ñu gëlëm euh, nelawatuñu buñ ko jëloon buñ ko jotoon tey jii mhm. amul benn soldat bu ciy jot amul benn sous-officier bu ciy jot amul sax officier subalterne bu ci jot parce que ñoom ci ñoom mi neen ci seen biir ay mm. colonel ki généraux ñoo koy séddoo mm. loolu moo fi am te tey jii ma wax la ne Comico euh, jóge nañu tribunal mm. procédure bi contrairement à li ñuy wax jeexagul parce que procédure bi suñ la waxee ne yow soo waxee ne yow dañ la jaay trente trois hectares de terrain nu Mm. nga ñëw fekk ay nit dëkk ci une superficie de de treize hectares et environ treize hectares yow nga mbubb woo ne trois hectares de terrain yi mm. nga jënd mm-hmm. nga ñëw dal seen kaw ci treize hectares jaay doole mënta weesu loolu non seulement yemoo ci sa terrain nu mais da nga dal ci kaw ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci ay bâtiment génne leen ci bâtiment yi sànni leen ci biti mala sax kenn du ko def noonu. Hmm. de surcroît muy loo xam ne teguwul fenn lu dul ci jaay doole dugg tribunal génne kayit te kayit ga ñu génne teguñu ko fenn parce que attaqué nañ ko. Hmm. fii ñu toll nii tribunal baa ngi daw ba léegi bépp procédure bu ñu defoon réinitialiser naa ko nañ ko attaqué nañ ko parce que jaaru woon yoon parce que ko en tiitre foncier boobu ni ma la ko waxee am na ci. Hmm. jox nañ ko ko immatriculé ko ko en 2004 lépp luñ ko jaayaat ci assiette foncière boobu. Mm-hmm. forfait la te ñoom xam nañ ko wakaam xam na ko àddina yëpp xam na loolu tey jii bu dul ñun sax Comico dinañ ko attaqué ci titre boobu muy wax ne dañ koo jaay ba ba tax moom mu ñëw dal suñu kaw. kon yéen da ngeen a fas yéene dem ba jeex même que ne leen mais xeex bi da ngeen koy continuer judiciairement expulsion bi forfait la jaay doole la dinañ ko attaquer te dañu de dinañu dellu fi ñu fi ñu nekkoon parce que benn euh, ay citoyens sénégalais lañu. Mm-hmm. ñaar donte yoon attewul dëgg dinañ ko attaquer parce que ñëpp xam nañ ne yoon attewul dëgg tey jii yaa ngi dégg euh, Sidiki Kaba. Mm-hmm. jóg def déclaration ne état bi léegi sax. nangu na assiette foncière bi yëpp jox na ko armée hmm, exactement da koy jël jox ko armée da jël jox ko armée hmm. mi nga xam ne depuis 2008 mi ngi ñu traîner. Hmm. ba man miy wax ak yéen nii dossier bii moo tax ma génn armée démb bu ngeen seetaanee. dossier bii moo tax nga génn armée. dossier bii moo tax ma génn armée. lu tax parce que 2008. waaw ba dossier bi dooree ba ñu bëggee ñun ñu génn amuñu pexe. dañoo indi chantage ci biir can cantonnement militaire yi di ko ci doxal boobu yaa ngi en fonction euh, retraite ñoom dañuy wax mais dossier ba muy ubbi mm. pratiquement kenn demul retraite kenn demul retraite kenn demul retraite nous nous mm-hmm. Mm-hmm. man dañ ma fekk ci sama cantonnement militaire bu ngeen seetaanee jàkkaarloo démb colonel mm-hmm. boobu toogoon foofu moo nekkoon foofu moom moo ubbi dossier bi ñoom la ñoom i neen ci seen biir ba ñu ñëwee amuñu fu ñu jaar parce que armee bu fekkonte ne am na fu mu jaar doo sëqët hmm. doo def sax vingt quatre heures mais amuñu fu ñu jaar teguñu ko fenn man dañu dañ ma dañ ma dañ ma attaqué na ma euh, bu fekkente ne nanguwoo woo génn ci kër yi hmm. doo dem stage doo dem mission hmm. doo avancé loolu lañ la wax carrément loolu ma wax carrément ñu ay euh, maanaam bu dee nangu génn ci xeexu kër gi daal boo nangu non bu dee nangu woo génn jël sa famille génne ko ah, ci génn ci kër gi kër goo xam ne armée moomu ko armée boo waxee mu ne la comico lañ ko jaay. comico hmm. du militaire comico coopérative la. Hmm. carac à entité à caractère. civil mais armée leen fa dugaloon. armée mais armée bu ñu fa dugalee it. Hmm. armée dem na ba rés ñun ay fonctionnaire lañ. fonctionnaire armée bi mu fay dugal ay fonctionnaire lañ ñuy dagg suñu salaire. armee ba mu ba mu demee ba résilier contrat am ñun continuer nañu nekk ay fonctionnaire ñuy continuer di dagg suñu salaire état du Sénégal. di ko jël di gérer kër yooyu. directement te yow léegi ñu ne la soo génnul sa kër ak ak sa njaboot euh, maanaam dañ lay kii ci armée bi. sanctionné mais dañ dañ non duñ la sanctionné parce que mënuñu ko. Mm-hmm. yoonu armée nekku ci kër yi moo armée moomu ko état du Sénégal moo ko moom état du Sénégal mi ngi koy joxe te sénégalais yi la koy jox sénégalais yi ñi mu koy jox prioritairement ña fa dëkk d'abord. pourquoi ñun ñu am priorité ci loolu. mais yow da nga ne euh, dossier bi moo tax euh, nga génn armée. waaw voilà euh, si naka continuer voilà. ba ñu defee loolu ñëw nañu en deux mille dix. Mhm. Sénégal di jëndi ay avion man ma nekk en bonne place pour jëndi avion yooyu ma dem fañ koy jëndee. Mhm. stage ba ma suivre ko avion yi buy ñëw ma ànd ak ñoom. ñu désigné ma ma jël sama yëpp dem defi sama certificat euh, visite médicale ak yëpp. Mm-hmm. bi ma ñëwee ci ngoon si. kolonel boobu nekkoon démb. ci ci ci TFM TFM. Mm-hmm. Mm-hmm. daal di yónnee ndaw ne man bu fekkente ne bëgg naa ñu maintenir ma ci mission boobu damay génn kër gi ma ne. condition boobu lañ ma boobu lañ ma tegal. ma ne ko bu dee loolu la jël leen seen mission. parce que moomu leen kër gi. noonu la ñu jëlee daal di jël keneen teg foofu beneen mission ñëwaat. Mhm. cette fois-ci ñi nga xam ne ñoo ma administré directement. Mhm. daal di jël sama dossier dem ba ci bureau ne ko mon colonel kii. Mhm. gisuñu kenn ci structure bi ku war a mën a dem ku moom. léegi daal ñun moom lañu ñu désigné. te dañ lay ñaan nga bàyyi ko mu dem parce que roplaan yi bu ñu demee bu ñu dellusee moom moo koy liggéey. mu ne leen sama yoon nekku ci su ngeen ko mënul dindi mhm. man dinaa ko dindi noonu la ma dindee encore encore avancement ñëw ñuy jël ay xale di leen teg sama kanam ma daal di jël sama demande d'audience mhm. dem fekk chef d'état-major mhm. armée de l'air bi bureau mu woo colonel boobu démb ñoom ñaar ci biir bureau chef d'état-major arme de leer bi ak man muy ñett ma jàkkaarloog ñoom ne leen yéen da ngeen nekk ay ay ay citoyen sénégalais ma nekk citoyen sénégalais mhm. ngeen nekk agent de l'état ma nekk agent de l'état mhm. état du Sénégal soxla pour man ma liggéeyal ko ñu désigné ma pour ma dem ngeen ne ma du ma dem parce que maa ngi dëkk ci ay kër mhm. boo xam ne yéen moomu leen ko armée moomu ko pour lan ñu ne ma non du ñun booba tiit nañu du ñun chef d'état-major général des armées bi moo joxe instruction yooyu muy loo xam ne dafa du dëgg ma jël sama sama sama lettre bind chef d'état-major général des armées. Mm-hmm. dal di koy rend compte bind ministre des forces armées. Mm-hmm. bind médiateur de la république. bind président de la république chef suprême des armées. des mm-hmm. mais loolu gàcce lañ ci jëlee ñoom parce que bi ma bindee ñooñu ba pare wax ji dafa wëlbatiku ñëw dal seen kaw. parce que bi mbir mi demee dañu jël courrier yooyu yëpp di ko obstruer mais am na ci yu jàll. bi ma demee ba xam ne léegi lii catastrophe la ma mm-hmm. jël sama sama kayit. Mm-hmm. bind sama demande de résiliation de contrat. Mm-hmm. maanaam mënatumaa toog armée ak exaction yooyu ñu may def. yi ñu def mënatoo continuer mënatuma continuer di servir. parce que déjà sax danger la. say kilifa di la xoolee benn bët. def naa fa plus de vingt cinq am naa sama pension naa dem yàlla jeexul. bi ma bindee demande de résiliation de contrat boobu moom kolonel boobu toogoon foofu. Mhm. mu jël demande de résiliation de contrat boobu nga xam ne kenn adressé wu ko ko. dafay def euh, circuit. Mhm. moom bu accès ci moom aviam kese lay joxe. si euh, kii boobu demande boobu chef d'état-major général des armées lañ ko jagle moom mooy mooy yor dernier mot moom moomu toogoon démb TFM daal di jël kii bi arrêté ko. bind ci ginnaaw ne. Hmm. demande bi duma ko traité fii hmm. léegi waa ji génnul kër gi. encore. ma daal di jël demande boobu dem ak hmm. moom tribunal bi ma demee tribunal. ñu ñaan ma njëkk ñoom tribunal jël woo in informé directeur de cabinet ministre des forces armées nga xam ne kooku magistrat la kooku informé chef d' état major général des armées chef d' état major général des armées woo leen ne leen yéen lii ngeen di def nii fu ngeen ko teg. fekk man jël naa courrier yi ma ko bindoon yëpp jox ko ko moom ci boppam affaire bi metti ko parce que lañ ko waxal waxu ko. Mhm. ñoom xamuñu parce que keroog seen wax jooju. le lendemain fu ma dugg ñu may lijjanti pour ma indi leen demande bi parce que xam nañ ne buñ ko deful dañ leen di punir. Mhm. nii laa génnee armée en catastrophe ba pare nag. Mhm. ñu jël sama certificat de bon conduite équivalent certificat de travail bloqué ko ne duñ ma ko jox. ma dem ba brigade prévôtale ñu woo leen moom colonel bii ñu woo ko laaj ko mu ne mi koy établir dafa pareegul 2011 ba fi may wax ak yow nii. Mhm. mi ngi ak ñoom. mi ngi ak ñoom euh, Anne euh, waxtu bi jeex na en tout cas question yi bari woon na liñ la bëggoon laaj mais waxtu bee ñu xoj euh, juste que dinañ la laaj ba xam 800 millions yi ñuy wax ne. Euh, état bi moo ko yëkkati pour jàppale leen dëgg la walu dëgg parce que encore si Sidiki Kaba confirmé na ko lan nga ñu ci mën a wax. yéen nga xamante ne yéen la concerne directement. balaa boobu rek euh, waaw temps bi jeex na bi jeex na mais balaa boobu rek ma wax leen ma ma ma yëgal leen ne. Mhm. li nga xam ne ci la sukkandiku. Mhm. ba def li ñu def forfait bi. Mhm. loolu. du dëgg du yoon parce que amuñu. Mhm. ñoom amuñu dara bu doonte mhm. amoo amu mhm. bu ñu waroon a am sax terrain nii nee nañ lañ leen jaay te du dëgg du yoon. ñëw tey ji gal nañu ci njabootu suñuy njaboot muy muy soixante dix neuf familles. tey bu président de la république waxee ne jox nañu huit cent millions. ñun ñooy tey ji ay sinistré lañu. defe naa ne fi ñu toog noonu. ñu abal ñu ñu nekk. Euh, fële ci ci Barthélemy Dias centre tey li gënoon a rafet. ñoom ñu def seen délégation ñëw xool naka la ñu toogee. wala ñu ñëw indil ñu assistance mais ay ñeneen ñoo ñu indil assistance yow boo jaglee boo jëlee huit cent millions di ñu ko jagleel ñun ñi nga xam ne ay sinistré lañu doo wax ak ñun. Hmm. yéen loolu am na wala amuñ gisuñu dégguñu. Euh, président kii ko Sidiki Kaba dëggal ko encore. waa mais lu tax président de la république ñun dañu laaj président de la république mu recevoir ñu en audience. parce que ñun am nañ message bu ñu ko délivré bu fekkente ne moom jagleel nañu loolu. wala lan ngeen bëgg dem toog wax ak président. wala mu yónnee ndaw mu ñëw ñu toog wax. loolu ngeen bëgg directement loolu bëgg directement. da ngeen bëgg dugg biir palais toog wax président li ngeen bëgg. ci ci ci dossier bi. biir palais du du du obligation. waaw mais toog ak président. mais bu ñu mënee toog ak président ñu toog ak président mais la moindre de choses ñi nga xam ne ñoom ñooy sinistré. nga nga nga nga nga nga wax ak ñoom. Mm-hmm. wala nga yónni ndaw mu wax ak ñoom. un mot pour Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz dañ koy gërëm di ko sant. Mm-hmm. kooku moom exemple la ci meeru Sénégal yëpp. may ñaan meeru Sénégal yëpp ñu wëlbatiku am taxawaay bi Barthélémy Diaz taxaw. Mm-hmm. ñun Wakaam la ñu bokk commune de Wakaam. tey Barthélémy Diaz moo ñu fat am loolu c'est c'est symbolique. c'est symbolique c'est symbolique. tey jii nag Wakaam du ma ko ŋaññi. ay ay ay ay ay conseillers Wakam génn nañu joxe nañ seen témoignage joxe nañ. Samba Bathily est-ce que soutenir na leen Samba gisuñu ko dégguñu ko. Samba Bathily deful benn effort ci boppam dina expliquer. Mm-hmm. Mm-hmm. lan mooy rôle am ci catastrophe bi am nii. Mm-hmm. parce que mënu ko ñàkk yëg ci commune commune am la lan mooy rôle lu tax catastrophe bi am kenn gisu ko kenn dégg ko ñëwul wo euh, seet si ñu ak fan la nekk ak li ñuy dégg ne moom am na ci terrain yi. ba xam dëgg la ba xam dëgg la wala dëgg a ah, dëgg la sax parce que jagleel nañ ko ci protocole bi ngay gis. Hmm. Barthélemy parce que maa ngi dégg Barthélemy. waaw protocole bi moom am na ci donc ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu bi jeex na pratiquement ann ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw maa ngi gërëm euh, auditeurs yi di leen sant. Hmm. aussi di leen massawu parce que li dal ci euh, njaboot yi. Hmm. metti na parce ci ñëpp la dal mm-hmm. lii image de marque Sénégal ci boppam mm-hmm. moo yàqu ci àddina mm-hmm. tey nag may wax ne war nañoo wëlbatiku xoolaat suñu bopp lobby bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lii muy ay officier yoo xam ne ñoom ñoo bokkoon nekk école ba ñu jóge wala ñoo bokk dëkk te dama lay wax ni quatre vingt pour cent yi cees la ñu dëkk ñoom ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu yëpp benn groupe bu ndaw la. Mhm. tey li leen soxal rek mooy terrain bi tegu seen loxo ñu séddoo ko. mooy lancer appel nag wakaam na jóg comme un seul ñu xeex li suuf si delloo dellu ci wakaam ñu utiliser ko à des fins euh, euh, d'habitation. voilà armée soxlawu ko amul lu mu koy def parce que armée ba fa nekk armée de l'air dafay jóge. voilà ñu koy remercier bu baax a baax kii lay Al Hassane Hann nekk président bu collectif des soixante dix neuf familles expulsées de terme sud fële ca Wakaam ñu ngi koy remercier bu baax a baax euh, ci disponibilité am ak leeral yi nga xamante ni indi na ko ci euh, dossier bi la di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaine euh, YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet comme ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème beneen invité jaa ngeen jëf.